gannaaw ba mu ràññatlee ne coronavirus lu am la te mi ngi ci mim réew CICES jël na ay matuwaayam ci jàngoro bi nga xam ne lëmbe na àdduna bi boo fi yegsee ay jumtukaayu cat ngay fekk ci buntu bërëbu jaayukaay bi nga xam ne nag tëj na ay buntam ni ki fan yi ñu wees ngir rekk mottandiku jàngoro bi liggéeykat yi fi nekk ak ñi fi jaar di ko rafetlu. waaw vraiment affaire bi moom ni ko defee am na solo ko parce que seet moom dafa war saa su ne nit moom fu mu toll dafa war di seet surtout comme nag feebar bii moom comme dafay dolli ko moom da war a fekk rek ñu gën a yokk suñu seet quoi. coronavirus bi médicament bi ci gën a gaaw mooy set mooy li foire international def nii mooy lu CICES def li ñuy def mooy xam nañ ne CICES këru événementiel la mooy ñun lañuy abrité ay séminaire ay réunion ay mariage nit ñi guddeeg bëccëg suba ngoon ñu ngi fiy jaar booy dugg. gis na agence sécurité yi taxaw ci à l'obligation raxas say mais booy génn aussi mu nga fiy liggéey man fi laa ne je suis chef de service booy liggéey booy génn booy dugg yëpp ci à l'obligation de laver tes ñëw ci séchoir bi nga séché say mais loolu mooy combattre coronavirus ñu jàpp àndandoo ci jàppale ci guvernement bi jàppale ci ñëpp ñi nga xam ne tey kenn mënu xëy bañ a mucc ci jàngoro bi. set moom bu ñu koy def xëy na feer bi du ñu mën waaw ñu gën fagaru rek feer moom dafa jaaxal àdduna bi yëpp gaa dafa jaaxal àdduna yëpp moom nañ nañ fagaru rek. ku ci nek dal li nga mën dal nang ko def. fi nak faaw rek nga raxas sa loxo yi ba mu set laata ñu lay bàyyi nga dugg ay agent yu ñu teg ci buntu bërëb bi di saytu bu baax ngir ñi fay dugg sàmmonte ak ndogal li ni mel borom wote yi sax ci lañu bokk. yéen fi da ngeen jël sa matuwaay ba pare na ngeen di def ni rafet na baax na li képp ku nekk à sa côté boo defee ni yaakaar nañu ne alhamdulilah dinañu si am jàmm. dañ ko war a respecté par force. parce que moom mooy médicament bi ko benn vaccin boo xam ne dañ leen vaccin bi mooy définitive moo mën a faj wala médicament bi moo ko mën a faj li mën a faj la mooy lii mooy set setle tey setale set bi mooy ngay raxasu setle mooy ngay jàppale ñuy setle te setale mooy nga wax nit ñi aussi sensibiliser ñu raxasu raxas seen loxo hygiène bi ñu mën ko concevoir. yile sénégalais nag ñoo ngi xaarandi jumtukaay yi ni mel ñu wasaare ko ci ndakaarook li ko wër. dëkk bi ñëpp ko war a def set moom toujours nit ñi dañ ko war a def fu ñu toll moom vraiment lii war a a yaatu ci a am bépp milieu fréquentation dafa war a am raxas ak raxasute sa kër njaboot gi sax famille bi war nañ fa mën a dafa taxaw lii ndax mu nit ñi mën ko respecté ndaxte mooy tax coronavirus ñëpp débarrassé wu ñu nekk ci jàmm. fu mbooloo war a daje war nañ ko def te surtout tamit lii bu ko defee tamit te li ma gis si transport yi bu ci gars yi waxut du baax. tata yi ñuy fessé ak super yi ëpp na buñ ko wàññiwul tamit ñaan ñuko yalla yàlla yalla bu mu dugg Dakar ñaan ñuko yalla yalla bu mu dugg Dakar mais Dakar xat na xat bo xamanteni ni dëgg fa yalla limay seen ni mom yalla bu mu fi dugg même bu fi duggé dina metti lool. ba fiñu tollu nak réewum Sénégal jotna am nak fan fanweer ak juroom ben ci ay tawat soxal li di coronavirus sàmmoon teg ndogalu ciat yi nga xamni nak nag nañu ko. doon lenn li mën a tax nag ñi ko amagul mucc ci jàngoro ji ba tax na doomi réew yi ñoom ci seen kàddu jàpp ne cat lu ñépp wara def la ci bërëb yépp